net li fi dane musa alayhi salam da nek ci kaw dojo di deyaaleeg boromam ci bir deyaale bu mune sa borom dama bëgg nga won ma sa maandu gi ni mi feñ ci sa jamm ñi nga xamné lu yag yag kenn ku ne dang ko jox akam ca moromam ba mu mat sekk sekk do bayyi kenn di yobbu ak sun borom ne ko musa yow day da ngay waju gaaw a tàng di ñàkk sago boo gisee loo xam ne xamoo ko mën naa am doo mën a muñ ndax ñàkk sago mu saane ko waaye nag soo ma defalee tawfiq rek danaa mën a muñ yàlla ne Muusa yow day danga ñëw sago soo gisee loo xam ne dara jaaxal dangay gaaw a tàng te Muusa ne ko ah loolu de moom soo ma dimbalee rek danaa mën a muñ ba am sago su borom ne ko kon ndegam na ngaa bëgg ma won la ni nga xam ne moom laa xame kumpa ak ni nga xam ne moom laa maandoo ba jaam bu ne boo tooñee sa moroom danaa fexe ba fayul la fayu mu sëkk gu wàññiwul dara dara ndegam noonu la kon demal ca bët ndox sàngam maanaam siyaan sàngam ci misaal boo demee nag nga làqu ci wet ga rek tey xool danaa la won foofa sama kàttan ak ni nga xam ne moom laa xame kumpa ak ni nga xam ne moom laa maandoo ak it ni nga xam ne moom laay sedd kenn ku ne àqam ci moroomam ba kenn du yóbbu sa ba kenn sa àqi moroom Muusaa def noona dem ca bët ndox boobee toog ca wet ga daldi làqu nag di xool ba xam lu ko yàllay wan Muusaa daal dem ca siyaan googee bëtu ndox boobee làqu ca wet ga am nag benn gawar bu agsi wàcc ci aw fasam daldi jàpp ci siyaan gi mbaa nga ne rekk bëtu ndox ba naan ca ba màndi fekk na am na ngise sum takkoon ci ndiggam te mu def junniy dinaar mu daldi koy tekki teg ko ci wetam daldi taxawal julli ba mu jullee ba noppi nag daldi waraat aw fasam fàtte fa ngise sa naka mu dem benn xale daldi dikk naan ci bëtu ndox bi gis ngise sa daldi koy for yóbbu gannaaw bu xale ba demee nag geneen góor goo xam ne daa màggat te silmaxa ñëw moom it naan ca bëtu ndox ba taxaw nag di julli ndeke gawar bi nga xam ne moo fàtte woon ngise sa fàttaliku na ko ne ah naa dem jëli ko naka mu xool gisul gise si waaye gis na góor gi julli mu ne ko góor gi andi gise si yaa ko jël ndax bi ma fi bàyyi ko léegi keneen mënu fee ñëw ba di ko jël yow yaa ko jël góor gi ne ko man gumbalaa ni may gisee sus gisee ba di ko jël mel ne waa ji day ko topp topp bakkanam li ko góor gi tontu ne ko man may gumba numay gisse sa ngise rek lol tax ko mer mu daldi bocc jeeseem dor ko gumba gi gumba gi daanu daldi faatu mu seet seet wisit wisit gor gi gisul ci mom gisse sa mu daldi dem aw yonam xam nga ni gisse ci mom xale ba ñewon far ko dem gor gi mom gannaaw bu xale ba deme la ñewon ci bët ndox bi rek nonu naan taxaw di julli waaye moom gisul gise si Moussa dafa daal ñàkk sago ci lim gis ndax lim gis moom mooy nit ñëw na war aw fasam daal di wàcc naan ci bët ndox bi mbaa nga ne siyaan gi ba mu jàppee nag bay bëgg julli mu daldi tekkee ci ndiggam ngise sam ca takkoon te defoon ca junni diinaar mu tekki ko teg ko fi suuf naka mu julli ba noppi nag daldi koy fàtte waraat aw fasam daldi dem ak gone nag muy ñëw daldi for ngise sa moom dem gannaaw ba ak góor dikk di màggat silmaxa boole ca naan ba noppi nag taxaw di julli dawar ba ñew fekk ko fa ne ko yow yaa sama gisee dal di koy rey gis ko wisit gisul ci mom dara lolu dafa jaaxal musa mu ne sa borom man day amatuma sago te xamna ne yow ku manu nga no def rek noona la kon xamal ma li nu mu demee borom yobal jibril mu dal ñew ne musa yalla neena na day mo xam secret yéen xamu leen mbir mi nag nii la dome ne ko gone googee nga gis mu ñëw jël ngi si sa dem fii mu nekk àqam doomu la jël ndax baayam danaa liggéeyal dawar bi nga xam ne moo fi fàtte woon gisee sa bàyyib gone gi da ko daan liggéeyal ba lam ko amee war ko ko fay war naa mat junni dinaar kon nag xale bi bu jëlee ngisee sa daa jël rek fay ga nga xam ne moom la boroom gisee si waral na fay baayam boobee mu ne ko góor gi nag fii mu nekk nii moo rayoon bàyyub gawar bi ki fàtte gisee si ñëw di ko jël si fekk ba góor gi rey ko ko yaa jël suma si ngise daa fekk góor gi kat moo rayoon baayam moom gawar boobu nga xam ne kon gawar bi bu reyee góor gu gumpa googu daa rey rekk ka reyan baayam nga xam ne kon góor gi dafa reyoon ci tooñ fayu nañ ci moom rek kenn ku ne suñ borom ne sama maandu ak ni mooy séet di àq kenn ku ne ba jot ca nii la demee naka Muusaa dégg li suñ borom wax nag dellu jaaxalewaat rekk ci maandu teg yàlla ak xam gum xam biir ak biti mu dellu jégluwaat boroomam sëñ bi ne ku seetantal nettali bi ni mu demee danga nga daal di xam ne yàlla moom dara ump ko te ku ñu tooñ ku ne dana la taxaw ba nga jot sa àq nga xam ne kon mën na am lu gis nit musiba mu rëy dal ko xamuñu fu mu bàyyi ko ba dal ko waaye yàlla moom ma ko teg musiba ma xam na lu tax mu teg ko ko